الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على رسول الله asalaamu aleykum wa rahmatullah ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Tuuba dellu di waxaate rek asalaamu aleykum wa rahmatullah ci turu cheikh Mouhamadul Bachiru ak ndigalam ak kàddum la ñuy jéem leen ko te lottu ci lool te ci teewaayub Serigne Cheikh mii jiite woon liggéey bi àndoon ko ak yéen ca waajtaay wa ak ci tàmbali gi tey ca suba ba tey ngeen yendu ci ba wàcc nii kon Serigne bi nee na. ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla dolli ko wér dolli ko kàttan te mattali ay mébétam mu ànd koog njabootug Serigne Touba gépp te ànd koog ñun taalibe yëpp gannaaw loolu nee mi ngi jottali ak cantam ak ngërëmam ak ñaanam ak xolam bu sedd. mboolem mbooloo mi fi teew. képp ku fi teew ku ne. muy góor. muy jigéen. di mag. di ndaw. ñi ngi lay xamal ne. mi ngi lay xamal ne. xolam sedd na guy yaakaaram it dooleeku na bu baax a baax a baax ci mbooloo mi ak Serigne Cheikh mi jiite mbooloo mi nee na na ci lool yaakaaram bu baax a baax. te it nee na rafet na njortu nag li ci kanamit ndax lii yitte ak pasteef ak pas-pas loolu rek moo de li ko lal te lépp lu jóg te àgg ci loolu rek nag la lalu mooy tax mu mën a àgg fa mu jëm te xam na ni itte jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi pas-pas baa ngi fi yéene jaa ngi fi ndax waxtu wu ne lu jiitu tey yu bare bare bare yu fi jaar gis na ci seen taxawaay bu baax a baax a baax a baax gis na ni ngeen ci sóoboo gis na yitte ji ngeen ci def gis na pastef bi ngeen ci def tey nag da cee dooleeku rek waaye it nag nee na bis bu ñëw day gàcceel ba ca gannaaw rek bisub tey bii ji jàlloon de amoon ngeen ci ndam defoon ngeen ci la leen ca waroon waaye biit gàcceel na yooya te noonu la rafetee njortu ci yii di ñëwit noonu rek lay demee nee na xam na ne du ngeen ci deltu gannaaw benn yoon te kanam rek ngeen ciy ndax liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba bi xam nañu liggéey bi liggéeyu Serigne Touba la te liggéeyal Serigne Touba mooy liggéeyu yonent bi sallallahu alayhi wa mooy liggéeyal suñu borom bi subhaanahu mooy liggéeyal soxna jaar yi nag mii ngeen dëkkal. moo tax xam ne yitte ji ngeen ko jox te xam na ne xam ngeen loolu moo tax yitte ji ngeen ci def ak pastif bu ngeen ci def ak pas-pas bi ngeen ci am loolu rek moo di li ko waral mu ne mu ngi ciy boppam di ñu soññ ñun ñii di ñu soññ ñun ñii di ay mbokkam te di ay taalibeem ak mboolem taalibe yi di góor ak di jigéen di mag di ndaw ñii ci dëkk bi ak ñii ci bitim dëkk bi ñëpp. am am yéene ku ne. ndax ku ci am yéene ku ne. ak ku ci am yéene ku ne. kee ku ci am yéene ku ne. ak ku ci la moo xam ko sori la. moo xam ba nga ci am. xam nañ nit. mu sori sori lu mu sori sori. am na yéene tey ji teew ci bis bi teew liggéey bi waaye ngant du waaye ngeen xam ne. ñi ñëwut ñi ñëwut. te am yéene jooju. am nañ pay gi ngeen am. ndax lii rek lañ yéene woon ñoo àndoon ak liggéey bi ba wàcc ni ngeen ko defee ni ñi ñëwut. am yéene yàlla na leen yàlla dimbali ba bu benee nee ñi mën a am jot gi mën a am kàttan gi mën a ànd koo yéen te yéen ñi fi nekkit xëyee ko ba ngoon tey jii yàlla dooli leen kàttan dooli leen dimbal dooli leen ak man ba li ngeen ci yéene fi ngeen bëgg mu àgg fa mbam àgg fa barke Sëriñ Tuubaa tey rafet nañ ci njort nag bu baax a baax ndax xam nañ pas-pas baa ngi fi yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi kon li ci des ndimbalal suñu borom rek lay doon ak ak sëriñ bi ak barkeb sëriñ bi loolu nag la ñuy dagaan mu def ko ci jëmm yi bàyyi fi jëmm yi kàttanal jëmm yi wéral seen i xel wéral seen i yaram wéral seen jëmm te boole ci ay xéewal nag ndax lii jëf la du jëfi doole di jëfi doole. ak jëfi ak jëfi poos ñoo ànd kon nag ñaar yooyu wér am tal am fekkee am xéewalit am gukku gunge ndax xéewal yi mooy gunge liggéey boobu kon nag ñi ngi jégalu bu baax a baax xam xam nañ ne lott nañ lool ci eh, teewal fi sëriñ Basiru mun sëriñ Basiru Mbàkke waxuma laak nag di jël kàddum waaye ndigal moom jëfee rek xëy na dana am ndimbal ba ñot ñoti ci ba man fee génne ay kàddu bu ñu ko mënta dégg it ñiy feeñal suñu yéene rek loolu rek la kon sëriñ bi sëñ Cheikh sëñ Basir loolu la waxoon ne mu ngi doolee soññaan mbooloo mi bu baax a baax ci ànd ak yow ci soxna jaara ci ànd ak yow ci sa gannaaw ci liggéey bii ci liggéeyub Serigne Touba bii xam nañ ne moom nit ñi lu baax rek lañ bëgg ku leen woo ci lu baax ñi fekk la ca ci woo ci lu baax nga leen woo ci loolu nga ànd ak ñoom ci ñoom loolu nga ànd ak ñoom looloo tax ñu nangu ko waaye ku leen woo ci leneen nit buñ la wuyu si it dañ laa ruus rek. waaye loola moom taxu leen a jóg waaye lii nag moom mooy seenu bëgg mooy seenu jublu mooy seenu yaakaar it mooy seen yaakaar tey ëllëg ndax mooy liggéeyal Serigne Touba ci loolu nga ànd ak ñoom kon nag alhamdulilahi rabil alamina yàlla na loolu sax te gën a dëgër gën a yàgg barkeb Serigne Touba ba ndam lii di gën di yokk bu baax a baax a baax tey ànd xéewal yu yaatoo yaatoo yaatu jërë jëf ñi ngi sant bu baax tey jéggulu kàddu yi nag Mbàkke waaw waaw waaw Mbàkke man na sëkk jërëjëf waaw kàddu yi fasaana rafet na jot na jot na bu baax a baax a baax baax baax jot na bu baax waaw waaw sëñ bi nee gën a soññ rek te gën a fedd li la yi rek waaw soo di la yi rek bu baax te te xam na lu baax moom du doy mukk ci àdduna nañ ko bokk xam ñun ñëpp te balaas koy xam nag nga jugee fi ba jàll ci suñ borom bu boobaa ci ngay doog a xamee ne lu baax du doy mukk ndax da nga bëgg a dellu si waat ngir sàkkuwaat ko fi te loolu moom fekk na wees na kon nag bu ñu yàlla dimbalee ñi nekk fi tey ànd ak tal ànd ak wér bootu ci ku mat a bootu nag muy suñu kilifa yii nga xam ne gisuñu leen ci lenn. lenn lu doye di gisuñu leen ci lenn lu ñu leen war a gis loolu tawféex suñu borom la kon nañ ko gën a xam nag te gën a feddli waat suñu laxasaay gën a jublu sëriñ bi rek te bàyyee ko suñu bopp mënuñ ci suñ bopp dara xamuñ ci suñ bopp dara mënuñ ci suñ bopp dara amuñ ci yaakaar ci suñ bopp it lépp sëriñ bi rek la nañ ko ko delloo ba ngeen koo jox suñu bopp moom la ñuy jox suñu bopp yaakaar suñu yaakaar ci moom la ne ci moom suñu léppit ci moom la ne kon nañ ko bàyyee suñu bopp moo ñu gën a xam fa ñu jëm te gë te moo ñu fa gën kon nañ ko bàyyee suñu bopp jërë ngeen jëf sëriñ seex nee na Mbàkke bale liñ ciy dolli rek nga ne sëriñ bi nga ne sëriñ bi bi nim santaane woon ndigal li nim santaane woon ndigal li mooy ñu yaatal liggéey bi mbooloo mi defee nañ ko noonu. mbooloo mi defee nañ ko noonu. te di gën a dalal xelam ci ne. te di gën a dalal xelam ci ne. yaakaaram na gën a yokk ci dëkk bi. yaakaaram na gën a yokk ci dëkk bi. ak xel mu dal. ak xel ndax ab dëkk. ndax ab dëkk. bu fekkee magi démb ya. bu fekkee magi démb ya. ak magi tey yi. ak magi tey yi. ànd nañoo gone yi. ànd nañoo gone yi. ñëpp takk seen ndigg. ñëpp takk seen i ndigg. fas yéenee liggéeyal Serigne Touba ci soxna Jaara. fas yéenee liggéeyal Serigne Touba ci soxna Jaara. xelam war naa dal ci ne. xelam war naa dal ci ne. coonob démbam ba ak barki démb. coonob démbam ba ak barki démb. suñ borom gàttandu na ko ak ndimbal. ci njaboot gi. nim ñu ko sante woon. ndax nim ñu ko sante woon. ba ci marché bii nga xam ne. ba ci marché bii nga xam ne. ñëpp xam ne ab jaaykat. ñëpp xam ne ab jaaykat. waxtu wii. waxtu wii. nga ne ko tëjal sa place. nga ne ko tëjal sa place. te génn ànd ci liggéey bi. te génn ànd ci liggéey bi. ñoom ñëpp ñu maase ànd tëj seeni place. jël seeni alal. jël seeni alal. ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi. ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi. ba liggéey bi mel ni mu war a mel. ñoom mag ñii nag. diggante sëñ ñaan sàll ak Baye Fallou Touré mi ak Baye Cheikh Fall Ndiaye ak mboolem mag ñëpp ñoo ànd ak ci lii mënoo leen a xàmmee ba liggéey bi mën a sotti nii mu mel kon daal nel sëriñ bi mboolem dëkk bi xam nañ li ñu bëgg xam nañ li ñu bëgg xam nañ ni ñu koy wutee xam nañ ni ñu koy wutee te la ci jiitu te la jiitu mooy waaj mooy waaj jekk tey jekku ndigal nañ xam ne daal seenu xëy seenu gont lépp dañ koo teg ci déglu ndigal xam nañ ne la leen di jëriñ tey ak ëllëg lépp ci biir ndigal la te wane nañ ko ci bis bii was wane nañ ko it ci bis weesu kon nag alhamdulilahi rabil aalamiina ba nga ñu waxee ci kàddug sëriñ bi ne ne bis bu ñëw gàcceel ba woon démb kon nag suñu xel gën dal waaye daal neel sëriñ bi na moom it na xelam dal nag na am na ab takkaayu gu wér ak laabali xol ak jekk ci lépp fas yéene liggéey Serigne Touba ci soxna jaara moom rek moo ne ci mbooloo mi waaw loolu rek laa noonu danaa ko ci dolli mboolem dëkk yi ñu wër yëpp yëpp ñëw nañ ànd na ñoom ñun tombalee ca Nioro ak fédération bi mbokk bi mu wër ak dëkk yi nga xam ne ñoo aju ci fédération Porokhane bi ma ne su ko lim fi benn par benn waaye ñoom ñëpp ca suba ba tey ñi ngi ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ba moo tax liggéey bi mel nii mu mel kon nag alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf Mbacke Balla ñu ngi leen di ñaanal gudd fan yéen it ak yàgg fi waaw ba yéene ji sëñ Bassirou Porokhane am ci yéen yàlla suñ borom dimbali ko ci ba lépp mat te matee ci seen i loxo waaw ngeen ànd ko ak taalibe seen tax taxawaay rafet na waaw seen yéen a rëy na waaw waruñoo wax genn kàddu jëmee ci jege ci dongo yi jëm ci waaye kenn ku mën a doon ci dongo ki fi gën a tuuti su jàkkaarle woon ak micro bi dana yëkkati ak cantam jëmee ci yéen wallahi asimi dimbali ngeen ñi xettali ngeen ñi xam nañ ne lenn ngeen ci Serigne tubaa man fa ngeen di amee Serigne tubaa yomb na leen te jege na leen kon su ngeen génne dugg ci suñu biir bëgg ñee jàppale rek loolu ngeen ko defee Mbàkke ñu ngi leen di sant di leen gërëm di yàgg ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yàggal seen taxawaay te guddal seen fan waaw ku tedd ki sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla gën ko fee yàggal ba lépp loo xamante ni yéene ngeen àggale ko ci liggéey bi ci kanamam lépp yéneen ngeen man ko ci baaxub yàlla ñoo ngi sant day gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah